mbokk yi dal leen ak jàmm ci biir limametti.com comme à chaque fois ñu ñëw ak ci seen revue de l'actualité nekk li nga xam ni moo gën a fës ci information yi fi jote a euh, kii di Ousmane Sonko ginnaaw bi ñu ko téye fa li ni euh, moom mooy section de recherche lu mat ay euh, fan daal di koy bàyyi mu daal di ñibbi këram ginnaaw bi mu ki nga xam ni moom mooy juge d'instruction loolu dinañ ci gën a yaatal ci biir seen revue de l'actualité ci biir seen revue de l'actualité benn ñu daal di faat bakkanam fa li xam ni moom mooy parcelle dinañ ci gën dinañ ci ni mu gën a yaatu plateau bu ñu ci toftalee yeneen xibaar yi nga xam ne xew na fi mu doon seen revue de l' actualité ngeen koy am ci biir seen site d' information li ma metti ñu daal di koy dooree ak libération ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko ah, ginnaaw bi ñu ko téye fële nga xam ni moom mooy eh, section bu recherche depuis mercredi eh, passé ki nga ne moom mooy Ousmane Sonko ah, daal di nañ koy bàyyi mu daal di rejoindre ñi nga xam ne ñoom ñooy njabootam ah, ginnaaw nag bi ñu ko inculpé daal di koy placé sous contrôle judiciaire maanaam mi ngi ba tey ci loxo yoon waaye bàyyi nañ ko mu daal di ñibbi ci këram loolu waral nag benn manifestation bu mag boo xam ne amoon na démb ci buntu këru ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko mbooloo ñëw di fësal li nga xam ne moom mooy seen contentement ci libération kooku nga xam ni moom mooy député bi di Ousmane Sonko. kii di maître Malick Sall di ministre de la justice doon ado ci manifestation yi nga xam ne jot na fi am ginnaaw bi ñu jàppee eh, ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko moom nag mi ngi doon waxee fële nga xam ni moom mooy France 24 eh, bi ñu ko laajee ci mbir mi moom nag daal nay tontu ne eh, ñu wàccoon ci mbedd mi di manifester ñu si ëpp ay mbër lañu maanaam ñoo xam ne dañuy bëre te amatuñu benn activité moo tax ñu doon wàcc ci mbedd mi di manifester loolu nag daal di nakari bu baax ñi nga xam ne ñoom ñooy jeunes yi ñi ngi ko doon manifester nag fi nga xam ni moom mooy réseaux sociaux yooyu di nakarlu kàddu kooku nga xam ni moom mooy maître Malick Sall ginnaaw ba ki nga xam ni moom mooy ministre de l'intérieur di Antoine euh, euh, ki nga xam ni moom mooy maître Malick mi ngi ñëw euh, di leen wax ni ñoom ay mbër lañ na loolu nag daal di leen metti loolu ba foo tourné ci internet bi ñi ngi koy nakarlu bu baax kii di ñaaxarañ loo ñëpp xam ko fi nga xam ni moom Sénégal mu nekk fi daanaka influenceur doon na àddu ci li nga xam ni moom mooy manifestation yi ni mu ci waxee nag neexul dara ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi parce que ah, wax bu ah, ñagas la ko waxee te def ci boole li nga xam ni dafa mel ni ay saaga looloo taxoon sénégalais yëpp ñu bëri ah, daal di koy attaqué daal di nañ sax dem ba fa li nga xam ni moom mooy këram daal di ko doon jéem taal ñi nga xam ne ñoom ñooy manifestant yi nag ñoom ñoo daal di def loolu ginaaw bi ñu déggee kàddu yi nga xam ne jóge na ci ki nga xam ni moom mooy ñaaxarañ loo di ay saaga jëmale ko ci manifestant yi ginnaaw loolu nag kii di ñaaxarañ loo ci boppam daal di def déclaration xelu sénégalais yi ci propos yooyu nga xam ni génnee na ko jëmale ko ci manifestant yi depuis nag mercredi bi passé bi ñu jàppee ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko euh, fépp ci Sénégal ñi ngi fay gis ay manifestation euh, manifestation yoo xam ne nag metti na trop daal di violent ba ñu bëri daal di si ñàkk seen bakkan mën nañoo compter lu mat fukki nit ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ak lu toll ci six cent personnes yoo xam ne am nañ ci ay gaañu gaañoo ci boobu ci ci seen biir nag am na si koo xam ne euh, démb la daal di faat bakkanam fële nga xam ne moom mooy Parcelles Assainies Parcelles Assainies nag ci wetu fële nga xam ne moom mooy Auchan bi la ñu faatee bakkan xale bu góor bi ah, ci information yi nga xam ne nag jot nañ ko ki nga xam ni moom mooy force de l'ordre bi ko daal di faat dafa ko daal di tiire bal ci bopp loolu nag nekk lu doy waar loo xam ne xew na fa li nga xam ne moom mooy Parcelles Assainies ba tax nag jeunes yi démb dañoo yendoo manifester di jàmmaloo ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi ngir am lu leen métte ci seen naataango boobu nga xam ni faat nañ ko jamono ji nag ñi ngi jéem a identifier ki nga xam ni moom moo def jëf ju ñaaw jooju ngir ñu mën ko teg ay daan wala mbokk internet yi loolu lañ leen indiloon tey nekkoon na seen revue de l' actualité nekkoon li nga xam ni moo gën a fës ci information ah, yi fi jot a xew ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di topp seen site d' information limametti point com ngir dara ah, bañ leen a rawoo di leen jox dig daje ah, beneen yoon ak yeneen i xibaar.